الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi fas yéene fàttalante ak yéen ci asbaabu rizq sabab yi nga xam ne bu ci doomu aadama jaaree borom bi tabaraka wa taala mën na ubbi wërsëgam yaatal ko may ko alal xam ngeen ne tey mbirum am alal lenn ci ñun dem nañ ba nu leen neex lañ koy defee nu leen neex lañ koy utee su daganee su araamee su rafetee su ñaawee dem nañ ba ne moyen boo def ba am alal rek baax na l'essentiel que na nga am ab jullit nag moom lu bari du ko yitteel waaye lu barkeel moo koy yitteel ab jullit lu yëg kontaan loo yàlla moo koy yëngal waaye du am am bu ne gàññ diine ji nga xam ne mooy lislaam nag dafa tëral ay sabab yoo xam ne bu ci doomu aadama jaaree alalam dina barkeel te yàlla mën na kaa dimbali mu am yooyu diine ji tëral nag ñaar la benn bi wàllu àdduna la benn bi wàllu diine la bu dee ci wàllu àdduna mooy góorgóorlu kal ijtihaadi fi l amal falaa yaqilu an yaktafi al insan biddua wala yamal walakin al insan yadu llaha wa yajtanib al maasi thumma yufakkir wa yamal lil xusuli ala rizq wallahu yuwaffiquhu bi dalik doomu aadama dafa war a góorgóorlu ci di tuur rong ñaqam di góorgóorlu ci kattanam ci dooleem di yëngatu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa jàngale ci hadisam yi njàngale bu doy waar yonent bi dafa nekk ci biir jàkkaam ji toog benn waaye dugg ci jàkka ji di yelwaan ar rasul sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu nekk sa kër mu ne ko ci lu mel nan mu ne ko ci ay bagage mu ne ko dara nekk fa aw ma dara mu ne ko dara dara dara mu ne ko dara nekk fa leen li ma fa fàttaliku daal mooy benn mbàjj moo fa nekk ak benn këll maanaam benn siwo bu may naanee ak mbàjj mu may sàngoo yonent ne ko demal nga indi ko mu dem yenn ko indi ko yonent bi daal ne ñi nekkoon ci biir jàkka ji kan mooy jënd lii bu ne dërëm mu nekk ñaar dërëm benn waay daal di jënd mbàjj mi am ku jënd këll gi mu nekk ñaar dërëm yonent bi jël benn dërëm bi ne ko kii na nga ko dépassoo beneen dërëm bi demal nga jëndal ma ci sémmiñ waa ji dem jënd sémmiñ indi weñ gi indi na yonent bi sémmiñ baa ngi nii yonent bi daal di fàq ci benn garab bant bu dëgër daal di koy def ci sémmiñ bi jox ko waa ji ne ko 40 jours bu ma la gis ci jàkka ji lan la ko wax dama nga liggéeyi jàkka ji nga xam ne boo fa jullee ñaari ràkk mook sunu jàkka yi téeméeri lay tollool yonent bi dax ko jàkka jooju allahu akbar jàkka ji nga xam ne jibril da ci doon wàcc jàkka ji nga xam ne boo fa toogee xetu aljanna daf lay xeeñtu yonent bi nee na maa bayna min bari wa rawdari rawdatun min riyaadil janna yonent bi dax ko jàkka jooju ne ko 40 jours moo la fi gis sallallahu alayhi wa sallam jàkka ji nga xam ne boo fa toogee xetu aljanna da lay da lay xeeñ mooy jàkka yonent yàlla muhammad yonent bi dax ko jàkka jooju ne ko 40 jours moo la fi gis waa ji 40 jours mu dem ci àll bi di gor ay matt di jaay di gor di jaay ba 40 jours yi mat mu ñëw mi ngi sol dàll yi bees yére yaa ngi bees waa jaa ngi set kawar gaa ngi melax sikkim baa ngi tàkk ah yent bi xam ne situation bi changé na mu ne waa ji waaw naka mbir yi lu nekk ci poos bi mu ne ko dépasse bu bu mun a assuré mu ngi nii loo bàyyi kër ga mu ne lu toll nii mu ne du lii moo gën nga nekk jàkk ji di laaj nit ñi nit ñi jox nañ la wala joxuñu la kon sabab yi lislaam tëral pour doomu aadama jaar ci di am mooy nga liggéey mais xoolal tey far yi li ngeen dégg mooy dajale nañ ulama wi Afrique pour ndóol dañ ci àddina bi wala Afrique ñu suqaliku Afrique du ñu mus a suqaliku Afrique lu dul yàlla tabaraka wa taala dimbali leen ci kàttanam du ñu suqaliku ndax suqaliku ay yoon la yu nit di jaar du tëdd di nelaw état yi ngeen dégg dañoo suqaliku yépp ban état ngeen ci dégg dañoo bëre ba suqaliku ban état boobu ngeen dégg dañoo fecc ba suqaliku dañoo football ba suqaliku li leen suqali mooy liggéey yi Chine ngi nii barki démb la jóg dañ fa dóoroon ay bomb Hiroshima ak Nagasaki yàggul dara histoire am koy jàngale ba léegi mais chinois yi raw nañ tey ci àdduna bi lu tax parce que dañoo liggéey japonais yaa ngi nii ñépp a ngi nii jóg di dem ñan ñoo deltu ginnaaw rek mooy africain yi kon suñu dajalee fi ulama yi naan dañu bëgg suqaliku dañuy nax suñu bopp beneen bi mooy xoolal ñi dajale julli di naan dañoo bëgg julli di suqaliku ñoo tabax monument ñaata milliards bàyyi julli di ñuy xiif ñu tabax monument kon ñooñu bu ñu leen ne dañ leen di suqali dañ leen di nax xalaat leen seen bopp loolu rek doy na ne dañ ni nax ku bëgg a suqali ko da ngay liggéey borom bi nee na wa ida qudiyati sala fantasiru fi l ard suñu su ngeen sëlmalatee julli dem leen ngeen liggéey waaye waxul ngeen dem damiye ji soo ba keppaaru ngoon nga gis ay ay góor toog di damiye Sénégal rek ngay dem gis dëkk boo xam ne dafa am ay garabu mbedd am ay banu mbedd mbaaw ci buntu kër Sénégal nga gis ban buntu kër luñ koy doyee ku tabax sa tabax sa kër ba mu rafet defar ban looy doyee ban bi foo toog ku toog du liggéey borom bi nee na bu ngeen sëlmalatee dem leen ngeen liggéey famsu fi manakibiha dox leen ci kaw suuf si wa kulu min rizqi wa ilayhi nusur ñaata aaya la yàlla dañuy wax loolu kon sababu àdduna pour doomu aadama suqaliku dem ci kanam sabab bi ci njëkk mooy doomu aadama liggéey yi kan mooy toog naan yàlla Omar fekk na benn waay ci jàkka ji waa ji di jaamu yàlla du génn lu dul jàppam toj ñépp di yéem waa ji naan ay kii ay kii Omar ñëw jël yar caw waa ji ba mu génn ci biti di xalangu ba sëram tas ñu ne Omar xanaa xamoo kii moo fi gën a ragal yàlla day julli du génn jàkka ji Omar ne bu ñëpp defee ni moom dëkk bi tas kii ñi ko gën a baax kan moo koy jox mu lekk mu naan ñu ne dëkkandoo yi ñu ne ñooñ ñoo ko gën ñooñ di ko jox mu lekk ñoo ko gën bu ñëpp defee ni moom dëkk bi tas kon dëkk suñu buggee suqaliku ah du ñu bëre du ñu nekk ay mbër ñoom ñëpp ñii nekk ay footballeur ñii nekk ay rappeur ñii nekk ay simbakat li fi waxambaane tey ci Sénégal li fi suuf ci Sénégal li fi ndox ci Sénégal allahu akbar ay bu ko tubaab yi amoon kon danañ jaay ceeb danañ jaay dugub danañ jaay mboq waaye ñun lu ñuy dee suñu teere yi suñu àll yi Sénégal kenn dëkku fi Dakar dong lan dëkk fu ci des yëpp kenn dëkku ci foo dem ah bala ngay gis dëkk bi àll ngay gis dex yaa ngi nii wër nu géej gaa ngi nii ñu nekk fii di jëggaane ceeb di ko jëndi ana xale yu góor yi lu ñuy liggéey ana góor ñi li ñuy liggéey dara kon liggéey mooy sabab bi yàlla def pour doomu aadama am wërsëg kenn du toog di ñaan di wird ba xaas bi ñëw di wird ba alal bi ñëw déedéet bu fekkee ci wàllu adduna la wàllu diine yàlla li mu tëral pour doomu aadama am wërsëg mooy julli julli ak respecté julli gi wa'mur ahlaka bis salaa wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa borom bi tabaraka wa taala nee na ci suratu taha soo bëggee am wërsëg yow jullit mu ne jullil digalal sa njaboot ñu julli na ngeen muñ ci julli na ngeen ci sax man yàlla laajuma la wërsëg man yàlla maa lay wërsëgal wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha dafa am borom xam-xam bu doon tukki ñëw julli ba pare ñëw ci imaamu koñam ne ko imaam ñaanal ma damay tukki mu ne ko yal na nga dem ak jàmm ñëw ak jàmm boo demee nga góorgóorlu mu ne waaw tisbaar jot imaam gis waa ji ci jàkk ji mu toog imaam ne ko ah subhanallah yow ci fajar ñaanalu ba la pour nga tukki mu ne ko damaa dem bay dem rek ma fekk benn picc bu gumba picc bi ma romb ko mu ngi gumba mu ngi lafañ mu ngi toog boqatu ma xalaat di ko xool ba ci àgg ma ni waaw picc bi fu muy jëlee lu mu lekk fu muy jëlee lu mu naan comme dafa lafañ dafa gumba ma jékki-jékki rek gis benn picc wàcc jóge ci kaw garab indil picc bee muy lekk ma ni man kon su ma toogee fii jarul may liggéey su ma toogee fii yàlla dina ma indil sama lekk imaam bi ne ko juum nga yow da ngaa bëgg a nekk picc bu gumba bu lafañ bi te ngaa nekk picc bi naaw di indil nit ñi ñuy lekk na wax nga dëgg de te ngaa nekk picc bi naaw ci garab gi di indil piccam morom muy lekk mais yow picc bu gumba bi nga bëgg a nekk gis nga kooku ni mu ko jaajee maa jullit dafa war a jóg dafa war a taxaw suqali boppam ci julli borom bi tabaraka wa taala nee na ku koy def dinaa la wër sëgal ñaareel mooy addu'a nga dem liggéeyi ba pare di ñaan yàlla boo ko ñaanul da lay mere yonent bi moo ko wax fa addaa nabi نبي الله إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر مكة لو تامو ملني ñaanu Ibrahima la Ibrahima moo jël njabootam soxnaam ak doomam yóbbu leen ba ci dëkk boo xam ne amul ndox amul mbay kenn du fa bay amul garab amul dara fi waadin gayra zi zarin inda baytika al muharram daf leen rawale daw ba ci àll bu xonq cur naaj bu tàng jër montagne mu teg leen fi waaye ba mu xoolee yàlla ne ko yàlla sama njaboot bu leen bàyyi rek yàlla indi xéewalam gis ngeen màkk kenn du fa bay dara te lépp soo loo fa dem dañ koy tuur ci mbalit ndax ñaanu yonent yàlla ibrahim kon da ngay liggéey ba pare ñaan gis nga ibrahima dafa rawale njabootam ba pare doog a ñaan yàlla toogul rek benn place waaye daf leen yóbbu ba ko nit ñi ne Ibrahima yow li nga def xanaa xamoo ko ndaw si ak xale bu ndaw bi nga sànq ci montagne yi lu tax nga def ko mu ne rabbana li yuqimu salaa ngir ñu mën laa jaamu yow yàlla loolu rek moo tax ma def ko gis nga mbokk yi ñetteel mooy at taqwa jullit su buggee am na ragal yàlla jullit bu buggee am na ragal yàlla na ragal yàlla rafetal ni muy utee wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu wa yarzuquhu min haysu la yahtasib soo ragalee yàlla problème boo am yàlla génne la ci waaye yàlla moo lay wërsëgal soo ragalee yàlla problème boo am yàlla génne la ci waaye yàlla nee na man maa lay wërsëgal allahu akbar julli day ragal yàlla xoolal démb ci waxtu wii am na xale bu jigéen bu ñu rey fii rek même pas zéro mètre yeew ko ba mu ne ngodd rey ko lu tax parce que alalu àdduna poñetu àdduna parce que caaxaan parce que banditisme kooku suba lañ koy suul bu Sénégal demee ba léegi rey nit chaque jour nga dégg ñu rey nit chaque jour nga dégg ñu rey nit rey nit comme lekk ak naa jàpp nit yeew ko pendre ko nit la ilaha illallah xam nga ne ñun alku nañu kenn ragalatul yàlla te yàlla nee na ku ragal yàlla problème boo am yàlla nee na mu intervenir waaye man yàlla maa lay wërsëgal ñeenteel mooy al istighfar di jéggalu yàlla suñuy bàkkaar suñu bëggee yàlla maynu dañuy jéggalu yàlla istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yàlla nee na jéggalu leen ma su ngeen ma jéggalee ma wërsëgal leen ay nit dañoo ñëw ci benn borom xam-xam ne ko ñun de dëkk ba amul ndox mu ne wax leen astaghfirullah kee ñëw ne ko man awma doom mu ne ko waxal astaghfirullah ñii ñëw ne ko ñun alal lañ bëgg mu ne wax leen astaghfirullah ñu toogoon ne ko ah yow day fee ñetti feebar lañ la fi wax nga joxe benn comprimé damaa bëgg doom nga ne astaghfirullah dañoo bëgg ndox astaghfirullah dañoo bëgg alal astaghfirullah mu ne aaya bi moo ko wax istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin gis nga kon di liggéey ba pare di jéggulu yàlla yàlla tabaraka wa taala daf lay wërsëgal mbokk yi beneen bi mooy infaqul mali fi sabilillah alal ji nga am soo bëggee yàlla barkeel ko dee ci joxe fi sabilillah tey ay nit a ngi ci réew mi lu bon rek la ñuy financé jamais ñu def ci lu baax dañuy romb jàkka yi romb hôpitaux yi romb miskin yi waaye bu ñu leen woowee stade bu ñu leen tuddee soirée bu ñu leen tuddee xumbal bu ñu leen tuddee simb la ilaha illallah nga ñëw ñu luwe ay oto yàpp ko ay nit ba mu fees dem di galayaabe ji di yuuxu di tëbaka dal te xamuñu yowmal qiyaam alal ji danañ la laaj foo ko jëlee danañ la laaj foo ko dugal borom bi tabaraka wa taala mu ne wa ma anfaqtum min shay fa huwa yuxlifu wa huwa xayru raziqin lépp lu ngeen am ngeen coppati ji joxe ci yoonu yàlla yàlla nee na man maa leen koy remplacer man yàlla tabaraka wa taala te maa koy barkeel kon suñu buggee am suñu buggee suñuy wërsëg yaatu ngalawaay li ñuy am nañ ci coppati di joxe waaye ñuy ñaan yàlla tabaraka wa taala bokk na ci ba tey loolu mooy birrul walidayn wa silatu rahim nit su amee li tax wërsëgam di yaatu mooy ay way juróom mu leen ci jàppale di leen dimbali naka ngay amee di romb sa ndey ak sa baay sénégalais moom jàpp na ne bu amee rek dafa war a jënd benn kër fële Nord Foire fële Fann Résidence bàyyi ndeyam ak baayam di torox kañ la fi ñëw samedi ak dimanche sànni leen benn 1000 francs wala benn 2000 dem yoonam déedéet dafa am ñu jàppoon ci sa dund tey ba mën nga am ñooñu buñ la seetaanoon rek musiba am ñaanu wayjur day barkeel ci doomu aadama waaye day tax doomu aadama wërsëgam yaatu waaye day tax doomu aadama dugg aljanna yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na man ahabba an yubsata lahu fi rizqi falyasil rahima wa yunshi'a lahu fi asari falyusil rahima képp koo xam ne bëgg nga yàlla yaatal sa wërsëg yàlla guddal sa fan mu ne deel jokk sa mbokk say mbokk ku la ci gën a jege mooy sa ndey ak sa baay say mbokk ki la gën a jege mooy sa ndey ak sa baay nooy demee di jokk ñeneen bàyyi sa ndey ak sa baay yont yàlla Moussa alayhi salaam mas na toog ba ci yàgg rek mu laaj yàlla benn laaj mu ne ko yaa rab man rafiqi fil janna yàlla ndax dinaa dugg aljanna man Moussa mu ne ko waaw waaw di nga dugg kay mu ne yàlla bëgg naa xam su ma duggee kan lay àndal yàlla mu ne ko taxawal ci mbedd mi ku la njëkk a romb rek moom la Moussa taxaw benn xale bëggoon romb ko mu ne kii la ci xelam waaye waa ji la dinaa ko topp ba ma xam lan la def ba dugg aljanna waa ji ñëw lal benn basang ci digg kër gi dugg ci néeg bi yenu benn meer génne ko jox ko mu lekk jox ko mu naan mu yenu waat ko delloo ko lem basang bi gàdduwaat mbuusam génn Moussa daal di fëgg mbagg waa ji ne ko sëriñ bi mu ne ko ah mu ne ko meer bi nga doon jox mu lekk sa lan la mu ne ko sama yaay la mu ne ko boo ko joxee mu lekk jox ko mu naan ba pare lan la lay ñaanal mu ne day yëkkati ay loxoom daan ne allahumma ij'al ibni hada maa musa ibnu imrana fil janna allahu yàlla maa ngi lay ñaan sama doom ji yal nanga ko booleeg musa doomu imran ci ajjana lan la musa wax xale bi abshir fa ana musa fa anta rafiqi fil janna kontaanal maay musa yaay sama àndandoo aljanna fan la amee loolu ci ñaanu ndeyam yal na yàlla def ñu ñu déggal sunu ndey yi ak sunu baay yi أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا mbokk yi bokk na ci asbaab yi ba tey sabab yi nga xam ne bu ci nit jaaree yàlla may ko wërsëg yaatal ko mooy mu rafetal jikkoom xusnul xulq yaqulu lxabibu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xusnul xulq wa xusnul jiwaar yacmuraani diyaar wa yazidaani fi lumraan ar rasul ki yàlla yónni woon ci ñun nee na julit bu rafetalee jikkoom mu rafetal dëkkandoo bi mu dëkk ak nit ñi yàlla day yaatal wërsëgam yàlla day yokk mën-mënam ci biir këram wa yazidu fi l umraan al umraan hiya siatu rizq yàlla day yaatal mën-mënam yàlla yaatal kattanam lépp lu mu song rek yàlla tabaraka wa taala def ci barke lu tax parce que waa ji dafa rafetal jikkoom waaye dafa rafetal ni mu dëkkeek nit ñi bokk na ci loolu ba tey asabru alal faqr wal balaa julit bu ñàkkee waroo saalit nekk ci mbedd yi di kepetu fu nekk nga dugg fa léeg-léeg sax ngay def lu bon léeg-léeg mu jural la ngay jaay lu bon wala nga liggéey ci lu bon muñal nga dem li yëngatu ci lu baax muñal ne da ngaa ñàkk ndax yàlla moo la natt am am nattu la ñàkk nattu la ñaar yëpp aaya alquran la fa amma al insan ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naamah fa yaqulu rabbi akraman nattu la wa amma ida mabtalaahu fa qadara alayhi rizqah fa yaqulu rabbi ahaanan am am nattu la yàlla nattu la xool ndax li nga am di nga ci jàppale nit ñi ki ñàkk yàlla ko nattu xool ndax dina muñ ndax du gàddu jaasi di agressé ji ndax du fen ndax du rambaaj ndax du jaay boppam ndax du ndax du yàlla nattu ko xool ndax li ko yàlla teg dina ko nangu bu la yàlla tegee nga ni doo ko nangu nag da ngay sonn doo am ba pare yenuy bàkkaar nga dee dajeg yàlla yàlla daal lay buub sànni la ci pënd safara nga alko mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala bokk na ci loolu ba tey li tax doomu aadama wërsëgam di yaatu yàlla di ci def barke mooy sukurullah doomu aadama bu ko yàlla mayee mu sant wa amma bi ni'mati rabbik fa haddis wa in wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum fàttalikum borom bi li mu wax mu ne su ngeen ma santee man yàlla ma dolli leen bu la yàlla mayee santal tey nag ñun sunu réew mi duñu sant yàlla maa ngi sant sàmba maa ngi sant diw nañu sant diw da ngay gis ku rey ay giléem rey ay nag rey ay xar koy sant du yàlla de keneen waajooju ñuy sant lan la def bañ koy sant yàlla mooy borom xéewal bi li ngay lekk muy neex yàlla la lii rees yàllaa koy reesal ana lu la doomu aadama defal yàlla rek sant sa borom moo tax tribunal bi gën a rëy diggante yàlla ak nit ñi la yowmal qiyam diggante yàlla ak nit ñi ak jinne yi yàlla daf ñuy woo ëllëg tribunal ñun nit ñi ak jinne yi tribunal bi xam ngeen lu ko waral yàlla nee na axluqu wa yubadu gayri maa bind ñu jaamu keneen man yàlla maa bind maa bind nit mu bàyyi ma jaamu keneen wa arzuqu wa yuskaru siwaaye man yàlla ma wërsëgal ko mu sant keneen xoolal loolu ana wal insi wal jinn fii nabain azim man ak nit ak jinn ëllëg dinañ taxaw ci tribunal mi yaman yàlla maa wax loolu yonent yàlla muhammad ne ko lu ko waral mu ne maa bind ñu jaamu keneen may wërsëgale ñuy sant keneen kuy sant santal yàlla soo bëggee sa wërsëg yaatu santal yàlla soo bëggee li la yàlla may mu am barke de ko sant laaj nañ borom xam-xam bi lan mooy sukuru mu ne as sukuru tarkul maasi sant yàlla mooy nga bàyyi mooy ko loolu mooy waaye du lekk ba pare dem baal ba mu neex la nga ñëw tëdd nelaw yeewu ne alhamdulillah loolu du sant yàlla sant yàlla mooy yàlla dërëm bi mu la may nga dem lekk ci ba suur nga sant ko nga jaamu ko ci dañu laaj sëriñ bu mag bi ne ko sëriñ bi sëriñ bi moo laaj njaboot gi ne leen ndax ku yàq dugub nekku fi ku yàq dugub ñu ne ko déedéet sëriñ bi fii kay kenn du fi yàq dugub dugub nit dina ko yàq ni nga koy amee balaa muy ñor booba muy ñor nga koy indi ci kër gi góob ko def ko ay saak nit di koy yàq mu ne déedéet du loolu ñu ne ko lan mooy yàq dugub mu ne mooy nga reer a dugub ba sa biir fees nga dem mooye ko yàlla loolu mooy yàq dugub kon ku bëgg yàlla di la may sa wërsëg di yaatu deel sant yàlla tabaraka wa taala bokk na ci ba tey li barkeelal alal di ko yaatal mooy atawakkulu alallah nga wakkirlu ci yàlla sooy uti xoolal picc yi musu leen dégg picc yi grève nañ c'est parce que dañoo yokk ceeb wala facture yi dañoo seer picc yi yonent yàlla muhammad nee na law tawakkaltum ala allahi haqa tawakkuli la yarzuqukum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasan wa taruxu bitaana su ngeen gëmoon yàlla wakkirlu yàlla jox seen jox yàlla seen bopp yàlla dina leen wërsëgal comme nu muy wërsëgalee picc yi picc yi fan la ñuy liggéeyee dañuy lekk di naan musu leen gis picc yi di mars ndax dañoo yokk mburu c'est parce que dañoo wakkirlu ci yàlla tabaraka wa taala yàlla moo leen di wërsëgal ndax dañoo jox yàlla seen bopp dañuy lekk di naan am ay soxna am ay doom ëpp ci àll bi boo fa demee dara jotu leen parce que yàlla lañ jox seen bopp julli di buñ bëggee seen alal am barke li leen yàlla may muy yaatu mbokk yi tabaraka wa taala nee na nañ koy sant waaye nee na nañu wakkirlu ci moom allahumma ijalna min almutawakkilina ilayk yow yàlla yal nag ñu def ñoo xamante ne dañuy wàkkirlu ci yow guddi ak bëccëg allahumma ixfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna bada almawt birahmatika ya arhama arrahimin ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة